moo di euh, campagne bi lee euh, yi ngi ci gën a nemmeeku sax bu ci mujj gis nañ ko foofee euh, ca Matam feefu ki fi nekkoon jiite réew mi di président Macky Sall gis nañ ko démb Saint-Louis ba ci tey Louga ak mobilisation Moustapha bi nga xamante ni si ni def na ko foofee ca Ñambur tey. waa xam nga toujours man dama jàpp ne gis nga adversaire politique boo ko amee boo bëggee dimbali sa bopp. Mhm. boo koy liir bu ko liiree ci lunettes yi nga xam ne da nga koo bañ déedéet da koy liiree si yi nga xamante ne moo lay wax vision bu fidèle situation fu mu toll. mais ñu bëri pour man actuellement bu ñuy liir fulu Ousmane Sonko xam nga nu ñu koy liiree. Mhm. lu nettu koo xam ne dañu koy opposé wala lu nettu ko àndool ak ñoom waaye bu ñu wéetee ci biir nekk dañ koy liire ak lunettes yi nga xamante ne lecture bu leen di jox mooy lan. Mhm. mooy bu ñu nekkee ci mbooloo da nga dégg ñu ne non mobilisation boo nekkee ci pouvoir yàgg naa mobiliser pouvoir mobilisation jafew ko nangam ak nangam xam nga li tax ñuy wax loolu. Mhm. dañuy bañ jàkkaarloo ak réalité bi te bi lenn la mooy. tey jii boo xoolee ful bi nga xamante ñoo génn Louga. démb ful bi génnoon Saint-Louis Saint-Louis maa ko doon expliquer ce matin. Hmm. ma ne li fa xew dafa dafa dafa doy waar ba nga xamante ne tey jii noo mënee comprendre foo xam ne da nga ñëw nit ki ñu ne nekk ñu maase ci buntu hôtel bi yëpp ba ci ruq yi nga xam taxaw. Hmm. ñu ne lan parce dañuy xaar leader bi nga xamante ne moo nekk ci biir hôtel bi. mais loolu tey jii boo ko gisee Saint-Louis man maa ngi la doon tooñ sax ma ne ñooñu taxoon ci buntu hôtel bi rek am na ñoo xamante ne ñoo ëpp seen mbooloo si campagne bi. bu ñu amoon mbooloo yore da ngay gis ñu commencé taxaw commencé def déclaration pour gars yi filmer leen ko ne i nit ñi lañ toll. <laughs> moom dama ko ci stade ba nga dem ma Mawade Wade dafa nekkoon si ay nit démba loolu mooy li jiitu beneen mbir bi nga ñëw ci biir stade bi gis débat yi mu fa tënd ak wax ji mu fa mais malheureusement Sénégal fii. da ngay wax farata ñu bàyyi ko fa duñ topp mm-hmm. sax sunna waaye dañuy dem topp xam dañ naan dañ koo sopp wala ngëneel la. Mm-hmm. mais c'est incroyable mënoo comprendre tey jii. fu mu dem Ousmane Sonko boo ko suivre fu mu dem. Mhm. day dem mu jël chaise toog Déthié Fall toog nii Abdourahmane bon autant pour moi Boubacar toog na le yenn gars yi ñoom Fadilou Keita nekk ci ginnaaw mu jël chaise toog yor ay këyitam. Mhm. xam nga doon façon la koy defee façon conférence wala cours magistral la koy joxee. Mhm. di leen ko benn par bennal secteur yi benn par bennal di waxtaan di waxtaan bi waxtaan bu jublu nag ñëw si. leader wala affaire yooyu mu xëcc benn leader bu fi nekkoon wala yow dóor ko ñaari crochet delloowaat ko. Mhm. léegi nag ñoom bu xëyee crochet yi mu dóor leader yooyu la mhm. nga dégg ma jàmbale nu Ousmane Sonko comme benn procureur bi campagne keneen ki ne waa day wër di menacer day wër di tëkkuwaate et tout ce qu'il a dit sur les contrats pétroliers. Mhm. ak li mu wax ci gaz bi yëpp. ak li wax ci démb boo ko dégloo démb boo ko dégloo ci li mu wax ci gaz bi ak sax dem na ba joxe ci information yoo xamante ne am na ñu bëri ñu fa toog ñoo xamuñu ko mais di leen ko benn bennaal benn bennaal maa ngi doon expliquer benn exemple ma ne bu fekkente ne tey jii dafa ñëw mu ne gaz bi am nañ ko waaye gaz bi fu mu génnee yàlla dafa def ne foofu la jën yi gënoon bëree. gis nga kii gis nga gis kii bi chance la waaye nee na fi mu génnee ci ndar googu noonu fi ñuy wax jatara. mu ne fa la fa jën gën a bëree léegi exploitation gaz boobu day tax jën yi dañuy daw foofu. mu ne léegi loolu woo nañ waa BP waa Cosmos ak ñoom ñëpp. ne leen da ngeen di defar ay récif mooy fi nga xamante ne comme foofu jën dañ fa doon daje mën fa mën fa multiplier woo euh, gën faa bëri mm-hmm. léegi da ngeen def ay récif yoo xamante ne dina mën na fay loolu ngeen defar si juróom-ñett yoo xam ne da koy alle rangale ci code bi mm-hmm. bu ñu waxtaanee ak ñoom ñu ne benn bu nekk mën doon ñetti milliards mu ne la waa na ngeen ko defar mm-hmm. su ko defee au lieu que fii benn loon doom waaye léegi dinañ am yeneen yoo xam ne jënd nañ fa mën a dajaloo gën faa mën a def ay dumbul gën a bëri mm, euh, gën a développé géej gi nga xam ne li nañ fi waaye ak gis nañ yeneen récifs yoo xamante ne nañ fa gën a gis seen bopp parce que yooyu ni ñu koy mën a tuddee sax yoo xamante ne yu ñu defar lay doon du bokk récifs naturels yi nga xamante ne dafay am ci géej bi mm-hmm. léegi loolu mu wax ko ñooñu ne ñu ngi def nañu leen commission boo xam ne ñu ngi ciy waxtaanee xool naka la ñuy def ba ñu teg loolu su ko defee jën yi duñu duñ gën duñ ci gën a loru mu jógee foofu expliquer contrat yi mu ne teg nañ benn commission boo xamante ne tamit contrat amul benn buñ ci signé boo xam ne duñ ko xool xoolaat ko lëj mbëj ko ba intérêt Sénégal nekk si kaw ñu doog a avancé mu ne sénégalais yi xam leen kon lépp lu jëm ci contrat danañ ko leeral nañ yiñ ci fekk nañ ko xoolaat lu ñu war def nañ ko mais information yooyu boo xëyee est ce que waroo tàccu ne ah wax dëgg yàlla ko suñu ressource kat ñii ñëw bees kat ñu ngi góorgóorlu pour teg ko ci axe leer mais déedéet doo def loolu da ngay xëy nga bàyyi boo xëyee da ngay xëy nga xool lenn lu ndaw lu mu wax jëmale ko ci farba wala lu mu wax jëmale ko ci keneen nga daal di koy gàddu di daw na waa lii la fi nekk woon tey or boo dégloo discours parfois il fait plus de trente minutes mm-hmm. plus de trente minutes presque une heure da toog di ko wax presque une heure mu toog di ko expliquer di ko expliquer di ko expliquer te loolu au delà de la campagne électorale dafa am lenn lu muy def ci ndaw yooyu mu fekk si mm-hmm. moo tax ma ne leen ku mën a lire ful la ku situation la mën a jàng jamono la mu Ousmane Sonko ndax xam nga lu tax xam ne ndaw yooyu fa daje noonu campagne bi dafay def une pierre deux coups au moment dafay dem mu waxtaan ak ñoom li nga xamante ne mooy contexte bi ñu nekk campagne lañ nekk dañu soxla majorité euh, nangam ak nangam mais jamono ngi ñëw jotu campagne boobu ak ndaw yu mu daje ni du ko amaat. Mm-hmm. est-ce que xam nga li ma la wax. moo tax campagne boo seetloo ba ci biir def ko campagne boobu da ngay dem wëy wëy wëy yëkkati nii def ambiance def non dafay jël temps jël lu mat wala lu ko ëpp yenn saay di leen ko benn par bennal benn par bennal parce que pour moom occasion la boo xam ne daf ci profité mu daal di expliquer leen lan mooy projet bi expliquer leen pôle pôle yooyu nga xam ne moom lañ bëgg euh, mu développer seen localité lan mooy pôle véritablement te loolu occasion bu ni mel du ko gaaw a amaat. Mhm. parce que ndaw yi ñu daggee ñëw ñu fa bëree te ndaw yooyu ñëw ñi nga xam ne ay sympa la ñu ko bëgg kenn ku nekk da ngay servir de relais boo ñëwee toog déglu Ousmane Sonko mu defal la benn cour magistral ci loolu lépp explique expliqué mais boo yeggee dafay mel ni batterie boo xam ne dafa vide ba muy ñu chargé ko. Hmm. léegi bu ñu la chargé dina am sax ñoom da ngeen di may ñu chargé waat ci kër ga. maanaam da nga ñu nga ne ah kii kat wax nañu nii def nañu nii nangam ak nangam lii ak lii ak lii ak loolu c'est très important. Hmm. moo tax ma ne campagne bi mu nekk def nii waxoon naa ko ce matin. il est en train de mener la meilleure campagne bi nga xamante ni mooy yeneen leaders yëpp actuellement moom moo fi nekk def campagne bi bi gën a parce que moom dafa xam ne campagne bi jamono la joo xamante ne tey jii mi ngi koy may muy tourner waaye mi ngi koy may muy saafoonteeg militant yi xam ba mu gagné ba léegi gisul leen woon mi ngi koy dina ko may tamit mu def promotion wala mu def publicité projet bi wax leen fi ñu jëmale réew mi ak li ñu bëgg yóbbu ci loolu bu campagne amoon du mm-hmm. naan mi ngi mi ngi def nangam ak nangam moo tax lii daf ci profité waale jël temps def ko ba nga xam mu bañ a doon xam nga mënoon nañ def campagne yoo xam ne day ñëw ay caravane lay def mu taxaw ñu tàllal loxo nii mu def show nii nangam ak nangam jox leen ñu majorité bi bu ñu ko joxee nañ changé dëkk bi évoqué fa quelques pistes daal di avancé dem bu subaa nga demaat fële 21 jours di nga ci wër Sénégal ba mu daj nga donc kon moo tax ma ne euh, déroulement wu campagne boo si amee jàngatu tuuti da nga xam ne une pierre deux coups la nekk di def et eh, loolu euh, balaa di di dinañ gis résultat yi bu ñu gënee dem ci kanam tuuti moo tax bu ñu moytuwul ñoom ñu bëri ci opposition bi dinañ am surprise ci élection législative yi parce que ñu bëri ci ñoom nag campagne dañuy ñu bëri ci ñoom non non campagne ñu badara xam nga lu tax. Mhm. ñu bëri ci ñoom seen sujet ci Ousmane Sonko la commencé yem ci Ousmane Sonko. Mhm. Ousmane Sonko laay commencé Ousmane Sonko la am na waaju fi jaaroon am nañu fi noo mënee comprendre ñu dem campagne. Mhm. bay bëgg a xaajal buggaan jékki-jékki rek rocc fële thématique euh, homosexualité. wax leen Ousmane Sonko mu waat ne dina criminaliser homosexualité ma ne mais ñoom kan mu leen di xelal seeni wàllum discours mais homosexualité booy wax mu waat si dafay fekk mu nekk benn thème boo xam ne daf na actualité am na benn prétexte boo xam ne sénégalais yi bàyyi nañ ci xel topp nañ ko bu baax a baax xam nga li ma la ba mu doon am jamono jëlee dafa amoon lu fi nekkoon. am yu fi amoon am yu dund dundar ko dundati ko ñii ñëw nañ jël nañ ay engagement mais ba ñu ñu ne engagement bi respecté wuñu ko wala nga dégg ñu ne du ñu respecté engagement bi. Mm-hmm. mais nga yenu loo xamante ne. di ko di ko daw ak moom daw ak moom loo xamante yaa ngi nekk di perdre temps moment boobu nga nekk foofu di invité kële pour di ko jéem a dugal moom mi ngi wër di def campagne am di jàllale ay message am yow moment boobu est doonu woon gën a jekk nga préparer sa discours préparer sa message jàllale ko su ko defee ñoom tamit ñu jot si loolu moo doon gën a am sens. Hmm. mais nga bàyyi ko fa dem topp ji ko nekkaat si di wax nangam ak nangam loo xamante ne sénégalais soxlawuñ loolu jamono ji message bi moo tax message du jàll. du koy da koy koy da koy koy véhiculer mais kenn du sax bàyyi xel. d'accord. Euh, d' accord daan am solo euh, ba tey euh, ci côté boobu sax la ñuy desandi est ce que peut tamit ñun habitude boobu la ñu am bu ñuy campagne moom mooy xaw a déstabiliser bu ma mën a tuddee noonu wala ŋàññi sa sa adversaire mm-hmm. est ce tamit pas am milieu bu ñuy campagne ñu am comme ni ñu ko waxee tout à am discours am loo xamante ni moom lañu essayer convaincre li nga xamante ni moom moo di askan bi que milieu di acharné wu ci keneen aussi. waa xam nga campagne da ngay am discours te du campagne sax un homme politique da ngay am discours. mais homme politique fi nekk nii yëpp wax dëgg yàlla bu dëgg rek neexee yàlla man gisaguma ko fi am discours ñi fi des nii nii Ousmane Sonko fi mu dem ba yegg si nii dafa am discours. Mhm. dafa ñëw indi benn discours am damay dañ ciy jëlee système bi waa dañu fiy jëlee lii ñi fi nekkoon nangam ak nangam nii nii ak nii dafa am benn discours boo xam ne moom la jaay nit ñi bu radical bu mu teg. ab objectif quoi. ab objectif voilà discours boobu mooy doon véhicule bi nga xam ne moo lay permettre nga atteindre sa objectif. Mhm. mais ñi fi nekk amaguñ discours. ñenn ñi dañuy sonko sonkalu ñeneen ñi xamuñu fu ñu jëm dañuy tendee falu def gauche def droite ñeneen ñi non seulement dañuy sonko sonkaluñu xamuñu fu ñu jëm mais dañoo ne yàcc ne yasar kenn xamul lu ñuy saf safuñu yàpp safuñu jën xamuñu dañuy ruube kenn xamul dañuy campagne kenn xamul lu ñuy def kon yooyu nga fiy gis léegi nag situation bu melee noonu tey jii ki muy avantage mooy Ousmane Sonko ak ñi mu àndal moo tax ma ne tey jii ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci langue politique bi ils ont intérêt à revoir leur position ak seen taxawaay yi nga xamante ne moom la am ci langue ci bi parce que bu fekkee te nii lañ nar a wéyee yaakaaruma ñu am dara ci langue politique bi parce que sénégalais yeewu nañ yeewuwaay boo xamante ne toll nañ foo xamante ne lekkati bi seen lekkati kese naxuli béy da ngay am loo def ci lekkat bi ñu mën laa topp waaye defoo dara ci lekkat bi toog di wax nangam te il faut ñu débat boo xam ne bu nga ñëw ba léegi Ousmane Sonko moo waxoon nii non vaar la nangam ak nangam léegi Ousmane Sonko bu defee jéego mbaa mu proposé dara mbaa mu def dara yow doo ñëw nga démonté ko xoolal kii référentiel bi mu indi ñu bëri bu ñu critiqué lu ñu wax non daa copier PSE daa def ñu nangam na man man bu ñu ne daa copier PSE xam nga lu may wax dama ne waa baax na. Hmm. bu dee dafa copier PSE baax na ñun xam nga Sénégal lan moo ñu amoon soxla indi nañu référentiel ñu ngi toog di xaar at fekk deux ans fekk trois ans yan jéego lañ def fan lañ jëlee dund Sénégal point A yóbbu ko point wala point C ñun foofu lañ leen di xaaree. Mhm. copier na wala copier wala def na lii wala fële la ko jëlee ñee ñoo ko def suñu yoon nekku si li ñu amal solo suñu réew ñu avancé dem bu fekkente ne yoon bi ñu jël yoon biy doxal suñu réew la bu koy avancé ñëpp dañuy ànd jàpp ci mu dem mhm. su fekkente ne du yoon bu koy doxal tamit ñun ñëpp dañuy teel taxaw ne ah a fexe nu ñu amee discours nu ñu amee ay nit ñoo xamante ni dañu leen mën a dimbali ñu avancer politiquement mais su fekkente ni nii ak nii ak nii lañ ko bëgg jàppee rek sa lépp nga yemale ko ci Ousmane Sonko. da ngay perdre sa temps te te yaakaaruma nga am ci benn retombée politique bi parce que kaayam xamala benn affaire Ousmane Sonko lu ñu koy gën a attaqué muy gën nekk à hmm. xam nga loolu lu ñu koy gën a attaqué muy gën a nekk à l'aise la la preuve dañ amoon na ay jamono fii daanaka bi muy doog a ñëw kenn attaqué ko kenn doonu ko woon gis kenn doonu ko woon dégg su nii dañ ko soxla laajte waa ani Ousmane Sonko ani nangam ak après xam nga lu ñu doon wax débat bi mi ngi dox si tapis bi dugg na ci avion bi dox mi voyage ak président dëkk bi c'est-à-dire ñoom <laughs> xam nga xam nga loolu loolu loolu mhm. xam nga lu koy indi ñàkk discours boo amee discours à chaque fois boo xëyee suba ba ngoon da ngay xool lan mooy améliorer lan moo ci loo xamante ne incohérence wala nangam a nanga toujours damay liggéey dama je travaille à ce que le discours soit cohérent soit soit accessible mu doon discours boo xam ne ñëpp koy bëgg topp mais ñoom comme amuñu discours seen lépp dañ ko jël tënk ko tëxañ ko teg ko ci kaw Ousmane Sonko mu ngay dugg ci avion te warul dugg ci avion mu ngay dox ci tapis rouge bi mu ngay def nangam ak nangam xool ka ni muy defee xool ka ni xool k nangam yooyu yëpp te loolu pour man ay ay ay ay ay ay ay démarche la yoo xamante ne il faut que xool ba xam naka la ñuy def su ko defee euh, ñu mën a construire benn discours boo xam ne dina leen dimbali ñu mën a euh, jàkkaarloo ak ñi fi nekk parce que on a besoin d'une opposition forte. quoi mm-hmm. qu'on soxla benn opposition forte boo xamante ne moo yor ay carton jaune ak ay carton rouge am bu ministre bi euh, mu génnee carton bu gaañee kenn mu génnee carton rouge noonu lañ soxla bu ko defee langue politique gën a taxaw ñu gën a mën a dimbali sénégalais bu baax a baax. d'accord euh, merci beaucoup euh, am na solo fu ñu ne euh, ginnaaw euh, lu ñeeloon li nga xamante ne moom moo di campagne bi ak mobilisation yi nga xamante ni mi ngi ko ci def moom njiital parti boobu di Pastef Ousmane Sonko ci yi nga xamante ni mi ngi fay daal di jaar ak discours yi nga xamante ni ngi ko fay daal di amal fa ñuy tëjee leneen moom xamante ni si yàgg nañ ko wax te ba tey dañagul muy wàllum transhumance bi nga xamante ni si ni jóge ci parti ba dem ci parti bale rawatina parti bi ñu ci gën a nemmeeku muy ñi ma feete woon fi nga xamante ni moom moo di ci di alliance pour la république di APR euh, jamono jile mun nañ euh,